on a am am am na luy raam c'est-à-dire bi muy def loi d'amnistie bi dafa ne il veut réconcilier le pays. Mm -hmm. et force est de reconnaître que cette réconciliation la tarde c'est-à-dire on entend des gens dire moi j'ai reçu la dernière fois la euh, Aminata Malik Sarr la patronne de de mhm. télédiffusion du du Sénégal. Mm -hmm. euh, elle a choisi cette TV parce que elle est passée par ici elle a fait son stage ici. Mhm. mais daño ko saga lan nga fay wuti. Euh, c'est-à-dire ma joxe beneen exemple euh, Wally Seck invité à la RTS on l'insulte j'ai même vu euh, des voix des voix taxaw di dénoncer loolu c'est-à-dire dafa mel ni tey aujourd'hui Sénégal euh, y a une partie du Sénégal jàpp nañu ne tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec le projet PASTEF ces gens la doivent être bannis ça veut dire que le pays n'est pas n'est pas réconcilié te violence bi mu ngi dellu si waat mhm. tension bi mu ngi dellu si waat Bougane Gueye Dany a donné son avis en tant qu'homme politique et mhm. homme de média sur un homme politique depuis trois jours ñu ngi koy saaga di ko wax wax li liñ doon bañ yépp mu ngi dellu si waat loolu aussi mën na mën na nekk euh, euh, benn cause endogène boo xam ne ça peut exploser plus non, tard xam nga la ñuy wax souvent euh, euh en science politique que l'État anoblit que l'État anoblit on a vu Ablaye Wade pendant vingt six ans mu nekk opposi opposant mais dès que Wade est devenu président mais l'État l'a anobli mais comme sama pël soriwul dégguma pël <laughs> mais y a y a un proverbe pël que j'aime bien le proverbe dit que l'habitude l'habitude c'est comme les cheveux tu as beau raser ça revient. c'est une seconde nature. c'est une seconde nature et ces gens-là à la limite euh, ils ont des instincts totalitaires et c'est pourquoi. tout, non mais ça dit que c'est c'est la logique c'est la logique des systèmes totalitaires c'est la banalité du mal des groupes sectaires et totalitaires et les groupes sectaires et totalitaires ne prospèrent que dans la tension dans la tension dans la menace dama doon la sànq boo xoolee damay comparer souvent parce en termes d'analyse la comparaison est plutôt intéressante damay comparer souvent la façon dont Pastef comme je dis c'est du gangstérisme politique comment ils ont fait une OPA par la violence cocktail Molotov menace comment ils ont pris le pouvoir ak comment les navis ont pris le pouvoir dañ comparer rek et puis là tu comprendras fi ñu toll ak les prochaines menaces ça veut dire que l'état comparaison bi ëppul. non ëppul non non évidemment la finalité n'a la finalité n'est pas la même parce que quand tu lis Hitler dans Mein Kampf ce qu'il dit mais xool xoolal la méthode le parti nazi nu mu commencé populisme populisme tentative de coup d'état raté le putsch de 1923 prison prison élection pouvoir et dictature ensuite non ah, ci la ci la deuxième phase bi fa lañ toll temps yi. c'est pourquoi la presse a un très grand rôle pour sauver le Sénégal la presse a été un tremplin pour ces gens-là pour prendre le pouvoir maintenant il faut que la presse devienne un rempart boo xoolee li ma doon wax Hitler populisme tentative de putsch raté le putsch de 1923 prison sortie élection pouvoir xoola Pastef populisme insurrection ratée prison élection pouvoir la, la, la même trajectoire la suite mais les nazis quand ils ont pris le pouvoir ils ont dit que la démocratie ne nous enrage pas parce que nous quand on était dans l'opposition on a vu les faiblesses de la démocratie et donc les nazis sont dit pour nous maintenir au pouvoir nañ def ñaari mbir détruire la presse et terroriser les magistrats détruire la presse et terroriser les magistrats parce que phase boobu lañ toll détruire la presse il faut le reconnaître faut le reconnaître qu'ils sont cohérents dans leur logique mais xoolal temps yi presse bi mais asphyxie fiscale bi c'est quoi la finalité nous quand on était aux affaires on faisait des amnisties fiscales parce que c'était volontaire c'était la politique Macky deux fois ngeen ko mës a def voilà la dernière fois Covid bi euh, sur année ak amoon na yeneen. la la la la l'amnistie ratée. amoon <laughs> mais l'amnistie ratée l'amnistie l'amnistie ratée l'amnistie <laughs> ratée l'amnistie ratée duñ ci dina ci ñëw mais nous on assumait <laughs> on assumait que dañoo war a dimbali presse bi. parce que la liberté de presse est la liberté qui conditionne toutes les autres libertés ce n'est pas parce que je suis journaliste je le dis la liberté de presse conditionne toutes les autres libertés donc les nazis bi ñu ñëw lu ñu njëkk a def mais supprimer la presse. Et quand ils ont supprimé la presse, il n'y avait plus aucune contestation. Ils ont terrorisé les magistrats. Et puis l'Assemblée a voté les pleins, l'Assemblée a, les pleins pouvoirs pour Hitler. Xoolal depuis quelques jours li xew asphyxie pour la presse. asphyxie pour la presse menace menacer les magistrats. non Yoro am na lu gën a sournois sax lu nëbbatu ci loolu. Mhm. xam nga gars yi euh, affaire euh, fiscalité bi rek la ñuy la ñuy wax euh, on mënoo recouvrer dix francs CFA au niveau de l'administration euh, public parapublic. Ouais, euh, tout est gelé. Euh, suñu contrat convention yi ñuy am alors que beaucoup de j'ai entendu le premier ministre euh, invoquer genre corruption la alors que ce sont ce des conventions contrats oui, publicitaires pour vulgariser les politiques de l'État qui sont déjà entamées ñu ngi dem presque mois de juillet léegi yow boo ñëwee ni ñi fayeekuwuñu euh, la ñu am mënatuñu ci jot nga boole ci ñëw euh, def euh, ñëw ñëw revenir euh, revenir ci processus d'amnistie fiscale c'est ton droit mais quand l'économie tourne il y a pas de problème mais notre économie ne tourne pas ba pare nag mieux encore gars yi di traîner les pieds et je le dis c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui a donné ordre de de de bloquer tous les comptes bancaires des groupes de presse concernés c'est-à-dire ah, dafa am lu gën a sournois lu làkkatu ci <laughs> ci ginnaaw ah, te waxuñu ko non non mais loolu la li ma lay wax dafa am lu gën a sournois c'est-à-dire qu'au cohérents dans leur démarche Ça veut dire qu'aujourd'hui, le next step, c'est la presse. Ça veut dire comment faire taire la presse. comment, étouffer économiquement. les entreprises de presse. Et à partir du moment, comme je dis, la liberté de presse conditionne toutes les autres libertés. Les nazis avaient réussi à avoir un gouvernement sans presse. et c'est parce que Hitler avait réussi à avoir un gouvernement sans presse qu'il a pu supprimer la démocratie donc phase bi ñu dans leur démarche maintenant c'est quoi la presse c'est des gens qui ont des mécanismes de soupçon qui font des vérifications qui déconstruisent fake news ça les arrange pas et la presse aujourd'hui comme je dis la presse a été un tremplin pour eux pour accéder au pouvoir maintenant il faut que la presse soit consciente de son le premier ministre du Sénégal dire que le président du conseil constitutionnel. Badio Camara nommément Badio Camara est un corrompu. c'est extrêmement grave. non non même. garaaw de. si non xam nga lu am na lu gën a garaaw. mais pourquoi UMS waxuñu. déedéet alors que pour moins que ça l'UMS sa. déedéet euh, sa fondé. dinaa la euh, fa faisait des communiqués. dinaa dinaa la ko gën a garaaw. xam nga lu ko gën a garaaw mooy lan mooy que le lendemain dara xewul. Et dans un pays normal, Mais le Premier ministre... c'est aussi grave. Dans, le, été démis ou le président du Conseil constitutionnel devait démissionner. Quand le Premier ministre de la République du Sénégal taxaw ak jàkkaarloo nit ñi ni bajo Camara le président du conseil constitutionnel est corrompu et le lendemain dara xewul. mu ne nañ fi dindi ñi nekk indi magistrat yu baax. waaye naa la expliquer ci après ah, après gis nga ma UMS ñi ngi noppi mais bu ñu paree ci presse bi ci magistrat yi lañ jëm li gën a garaaw mooy léegi. premier Sénégal wax loolu dara xewul ça veut dire que sénégalais yëpp léegi dañoo yaakaar ni waxu Ousmane Sonko jarul dóor sa dañ ñëw dañ banaliser prise de parole. dañ banaliser waxam. non jarul dóor sa doom xoolal affaire épi épisode var et ça c'est pas. mais est-ce que war nañ ko banaliser. non mais c'est c'est ça la gravité. est-ce que war nañ ko banaliser parce que moom li mu bi mu taxawee grand théâtre li mu wax loolu la gëm. mais dans un mais la loolu lay doxal. mais dans un régime normal le premier ministre aurait été démis. où le président du conseil constitutionnel aurait démissionné li ma li ma metti rek ci suñu république mooy léegi waxu premier ministre Sénégal yëpp dañoo yaakaar ni jarul dóor sa doom mais am na lu mu wax am na am na am na am na leneen lu mu wax nee na les gendarmes là qui sont morts les deux gendarmes. moom leen yàlla yërëm. mais nee na oui ils ont été tués et balancés dans l'océan on va pas un crime impuni ça veut dire que donc le premier du Sénégal bu xamee ñu ko def te jàppu leen c'est ci dara nag c'est nee na rapport bi tax ñu tëj ko affaire ñu empêché ko mu nekk élection diffamation rapport bi ngi ci bureau mais na ko génne na ko génne li ma pour man li gën a garaaw mooy léegi sénégalais yi pour ñoom wax Ousmane Sonko jarul dóor sa doom et quand même nous on a besoin d'une république avec un premier ministre dont la parole est